Et pour la plupart, ils n'ont même pas d'avocat, ils n'ont même pas de conseil. Personne ne les suit parce que de nous Il y des efforts que PASTEF fait, il y a des efforts que le F24 a commencé à faire, mais par rapport au proportion yu affaire bi jël Bidjel, des centaines de jeunes Fanek. On parle ici de na 500. Romunoko, Romunoko Didem. Ils n'ont même pas d'assistance. tax je pense que F24 a lancé un appel pour que nous nous top.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 créer des troubles euh, graves à l'ordre public et des troubles politiques graves teg leen ko yéen ñëpp man j'étais j'étais victime loolu man tamit loolu lañ def avec quatorze autres personnes commissariat central jóge fa ñëw euh, bagante retour de parquet ba ñëw jàkkaarloog juge d'instruction bi ma ñëwee mu notifié ma ni ne mandat de dépôt la comme tous les autres ma ne ko non je rejette ce mandat de dépôt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 c'est-à-dire lu ñu bëgg wone opinion internationale CPI bi nga xamante ni ñu ngi monter dossier pour mu dem fa ak yeneen ak yeneen ñooñu la ñu bëgg won ni Sénégal fii tout nice citoyen sénégalais yi manifesté wuñ dara amul opinion bu ñu manifester ay bandi ñooy génn rek bëggu bloquer réew mi te du dëgg